mbokk yi dal leen ak jàmm ñu ñëw ak yéen ci beneen xew-xew jamono bu xewee foofe ca région bu Kaffrine ñaari conducteuru moto Jakarta ñoo doon xeex ba daal di jamante yàlla ci jàpp waaye heure bi ay bakkan mënoon na ca rot mbir yi nag mi ngi xew ni ki altini ginu génn bu ñu sukkandikoo nag ci journal l'Observateur bi nga xamante ni moo joxe xibaar bi ci parution jeudi bi ñu nekk benn waay buy wuyoo ci turu MBND moo daal di jam ay baax rek ci xamante ni moo di xaritam bi di wuyoo ci TND ana nag la ñu jotee ba ñu daal di xeex ba jamante loole journal bi di l'observateur ba léegi mu ngi koy xamle bu ñu sukkandikoo ci yëglekaayu groupe Futurs Médias gi TND daf doon yedd rek ki nga xamante ni moo di xaritam bi di wuyoo ci MBND ginnaaw rek bi nga xamante ni fekk na ko mu doon def ab rapport sexuel ak xale bu jigéen boo xamante ni dafa am jëkkër maanaam dafa marié ci biir yedd gi nga xamante ni doon na ko yedd nag ci la boobee ND daal di rek mer jàpp ni ki nga xamante ni moo di xaritam bi di TND daf ko offensé maanaam dafa yëkkati ay kàddu xamante ni teguwul yoon ba tax nag mu daal di jël a paaka jam ko ko ci kanam gi ba léegi nag bu ñu sukkandikoo ci journal bu Youssou Ndour bi mi nga xamante ni fësal na information bi waa ji nga ni jamono ji jam nañ ko a jam-jami paaka yu bëri ci kanam gi yóbbu nañ ko ci hôpital régional bu Kaffrine waaye nag ndayu mbi léegi di femme bi nga xamante ni moo waral lekk ba ñu daal di xeex ba xamante moom bi coow li jëbee dafa daw réeri kenn bët yenn ci restant yére yi nga xamante ni soloon na ko rek la fa bàyyi jërë ngeen jëf fii la ñuy yam